alhamdulillahi bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal sama bàkkaar yi moytu leen di ma jooral aka baax waaju sell dem na te wóorul rabbana mi ma xam te du ko jaaxal du ko ñuy nax bu leen ba ñëw di ma sellal li ma nekkoon ba xëy ne ku mu leerul bu ma sellal walaahi ñaana ma dàqal ku ma tooñoon de maa ngi sàkku sa njëggal di la tuubal ti baalu bul ma ko jàppal la ma xiiroon ci tooñ la lépp de nekkul lu ma neexoon rajiimi rek kama xirtal ku xel dem ci man taril la mokkal di lu baax tuddu tur wi tif ma am dal baña sàlloo di dëgg mel ne ku sunu buur bi moom ku neex ko delay jël ñi fi aw jàll ñépp a gën ma bu leen fani fan def ci man ne àddina jeexul bu ñu sëngéem xalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bu ñu sëngéem xalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bu nu booloo ganaaw bu jàll na yellul ku ne toogaat di xaar xanaa ku liggéeyul nanu dooraat liggéeya tey bañ a yàggal te ku faatoot la des ci moom di ko ñaanal jërë ngeen jëf xam ne faw da ngeen jël vidéo nataal yi lépp di baaxal di ma seeral yi teeg yeneen yamu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal jërë ngeen jëf xam ne faw da ngeen jël vidéo nataal yi lépp di baaxal dima seereel yi teeg yeneen yamu àndal te bu boobaa te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal